الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فزا غليظ القلب لانفضوا من حولك إخوة الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم هو الأعظم إنه بحق الأعظم كيف لا وقد اصطفاه الله على بني آدم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين أرسله ربه رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور إنه الأعظم فإذا كان في البشرية من يستحق العظمة فهو محمد هذا كلام علماء الغرب المنصفين والمسلمون يؤمنون به ويحترمونه ويوقرونه ويبجلونه فهو قدوة العليا وهو شفيعنا يوم القيامة وقائدنا إلى الجنة صلى الله عليه وسلم mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala xam ngeen ne xew-xew bi ci àddina bi benn xew-xew kese la mooy lan je suis Charlie waaye jullit moom day wax je ne suis pas Charlie je suis Muhammad ab jullit moom loolu lay wax lu waral nag cong gi romb ñëpp di jëm ci Muhammad loolu la nit ñi war a laajte lan moo tax yahud yéeg nasaraan yi yu weex yeeg yu ñuul yi seen cible nekkul lu dul Muhammad parce que waxtu wi dafa jot waxtu woowu mu diggee woon ne buñ ci tolloo léppay làqu lu ñuy wax diine lu dul lislaam léppay fay lu dul leeru yàlla bu dul diine ci lañ toll tey Europe Amérique partout dans le monde nit ñaa ngi dugg ci l'islam te pourtant jullit yi defuñu benn effort sax pour nit ñi ñëw waaye yàlla mooy indi nit ñi ngelawal yàlla mooy indi nit ñi subhanahu wa taala comme xam nañ lool nag foog ñu takkal lislaam ay pot yàq deram ñaawal ko tilimal ko wax ne diinay terroriste la diinay fondamentaliste la façon wax bu nekk ñu wax ko suñu waxee ba sonn kenn faalewu leen foog ñu commencé sayite li xew France pourtant tey maa ngi lire ci Facebook bi ñu ngi jàpp benn artiste boo xam ne dafa ne Régis Charles Traoré rek ñu jàpp ko ñu ne dafay sayite ñoom waxuma sax ñoom mais fii sax ci suñu réew ku offensé président de la république nu ñu lay def ñaata journaliste yi lañ fi arrêté ñaata ay nit ñu ne dafa offense par chef de l'état wala wala chef de l'état ak Mouhamad ko ëpp doole kan moo ëpp ay militant ko ëpp mbooloo waaw léegi ñoom bu ñu munee défendre seeni droits pour offense au chef de l'état offense au offense au pourquoi ñuy bàyyi ñuy offenser Mouhamad offenser Mouhamad du yomb mbokk yi dëgg la am na jullit yuy nelaw waaye am na jullit yoo xam ne Mouhamad moo leen gënal seeni ndey ak seen baay am na jullit yoo xam ne muhammad moo leen gënal seen bopp wa rabbil kaaba muhammad bu doon dund tey bu gasoon ay teen ne dugg leen wala ay teen yi dina fees ba mooy mujj ne arrêté leen bu leen duggati loolu am na ay nit di nekk ci adduna bi ah mbokk jullit yi muhammad du moroom lu tax xoolal yàlla ni mu toll moo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi man yàlla waxuma man rek ak samay malaayika ñoo ngi julli ci yonent bi kon kooku du ko ndaw bu waxoon bu yàlla ne woon man kese rek doy na waaye mu ne man sama kattan sama tolluwaay ak sama màggaay man yàlla bu dee maa wekk yonent bi bu dee maa ko bëgg bay julli ci moom sant samay malaaka nañ julli ci moom ma sant yéen ñi gëm yàlla na ngeen julli ci moom kooku est-ce que ku ndaw la déedéet kon ñoom Charlie ak seeni mbokk waroon nañoo xam jamono ba ñu jëlee seen xalima rombal ko ñépp ba ci ki gën ki yàlla bind muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu koy saboté waroon nañoo xam ne un jour viendra am na lu leen ci fekk te du nekk lu ndaw waroon nañoo xaar loolu ak képp ku mel ni ñoom ak képp ku leen bëgg ndax man kassara sawdaa qawmin fa huwa minhum ku demoon mars ba keroog rek yéeféer nga bu yeboo nga jóge Sénégal bu yeboo nga tudd nu la neex képp ku bëril mbooloo ay nit yonent bi nee na yaa ngi ñoom a yem yonent bee ko wax de waxuma ko man kassara sawdaa qawmin fa huwa minhum yonent bi ne ku bëril ñuulaayu mbooloo ay nit rek yaa ngi ñoom a yem bokk nga ci ñoom fa huwa minhum moo tax su nit di dugg di farfarloo mbaa ngay sot mbaa ngay jàppale war ngaa xam lii ngay dugg sa diine lan la ci wax bëri na lu julli di dugg tey lan moo leen ci yóbbu lu nu xamul parce que texte diine yi moo leerul ci jullit yi te diine lislaam du lu ndaw parce que ci yàlla la bàyyee ko looloo tax yàlla bind asamaan ak suuf li ñu bàyyi ci kaw suuf mbokk yi mooy diine diine jooju mooy lislaam yonente alayhi salaatu wassalaam moom la yàlla bëgg ba giñ ci dundam ginnaaw ba yàlla waxee maa ak malaaka yi dañuy julli ci moom xoola yàlla lan la wax fala wa rabbik yàlla giñ ci muhammad fala wa rabbik laa yuminuun xatta yuhakkimuuka fi ma shajara baynahum yàlla nee na nit ñi bu ñu jullee bëgguma ko suñu wooree bëgguma bu ñu ajee màkk bëgguma bu ñu saraxee bëgguma lu dul yow muhammad nit ñi ànd nekk sa ginnaaw di nangu lépp loo leen atte di nangu lépp loo leen wax su boobaa ñu nekk ay jullit bu ñu lànkee duñu ay jullit kon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa al azam wallahi mooy ku màgg ki ñooñu ñuy wax ay jullit amuñu ci kaw suuf ku gën a màgg muhammad sallallahu alayhi wa sallam innahu bi haqqi l azam kayfa la lu tax du nekk ku màgg lu tax parce que yàlla moo ko tànn bi yàlla di tànn mbindeef yi dafa natt ruu yëpp ban ruu moo gën ruu muhammad daal di génn mu teg ko côté mu nattuwaat ruu yi ruu yi yonent yi génn mu teg leen de côté mu nattuwaat ruu yi ruu sahaaba yi génn mu teg leen de côté mu ne kii moo gën ci mbindeef yi yonent yi ñoo ci topp sahaaba yee ci topp moom yonent moo ko wax mu ne wallahi maa waqaati al ard baada al anbiya xayrun min abi bakr giñ naa ci sama màggaay borom kaw suuf ginnaaw yonent yi ku mel ni aboubacar doxu fi aboubacar fan la bokk ci groupe sahaaba yi kon yonent bi moo fi gën sallallahu alayhi wa sallam ñaan ñoo ci topp yonent yi nan ñoo ci topp sahaaba yi loolu yonent bi moo ko waxaat xayru naas qarni yonent bi nee na siècle bi gën ci siècle yi mooy sama siècle kon moom mooy al azam ku màgg ki bañ na ko ba yowmal qiyam moom mooy yor drapeau bi nee na liwaaul hamdi bi yadi ëllëg maa yor drapeau bi ëllëg maay njëkk a dékk yowmal qiyaam su àdduna bi yëpp jeexee ba yàlla tracé lépp mu nekk suuf ndandu fay-fay yàlla toog at yu ko neex day woo jibril ne ko demal nga indil ma muhammad jibril wàcc ci kaw suuf si du xam fan la bàmmeel bi nekk te gis ngeen bàmmeel bi tey nu mel waaye keroog yàlla day moxoñe lépp ba lekk nekk suuf kenn du xam de kenn dootul gis lu taxaw jibril bu ne cëpp day dellu yàlla moo ko gën a xam bu yegsee yàlla ne ko ana sama sang bi ana ana ana ana sama soppe bi mu ne ko xawma fuñ ko denc yàlla mu ne ko wàccaatal balaa muy ñëw fekk na ñaari projecteur néon yu weex tàll ñu ngi tiim ci bàmmeel bi di takk mu ñëw fëgg diggante ñaari làmp yooyu ne ko pëkk pëkk ne ko sang bi jógal wuy sa soppe yonent bi ne tëll xar suuf si génn sikkim bi tax suuf jibril di ko faxas nee na man la ñuy njëkk a solal yére keroog maa ngi njëkk a sol yére man la ñuy indil sama manto ma sol keneen kenn du sol yére ku dul ñaar yonent yàlla muhammad ak ibrahim alayhi salaam mu ne ma jiitu ñu jox ma caabi aljanna ma ñëw fëgg ridwaan ne ma kookal la ma ni ko muhammad mu ne yow lañ ne ma waxoon balaa may ubbil kenn naa la ubbil kooku bu ko saarli tooñee dafa def lu mu xamut waaye nag seen digganteeg yonent bi mu ngi mel ne yoo bu naaw daal di teg ci garabu guy yandu fa ngoon di waaj a ñibbi timis jot muy waaj a dem ci biir kër yi moom yoo bi mu ne garab gu guy gi dëgëral la say cat waxal say reen nañu jàppandu maa ngi waaj a dem balaa ngay daanu guy gi ne ko bi ngay tag fii di yendu yëguma ko woon seen digganteeg Muhammad noonu la mel ñoom dañuy wax ba sonn waaye lii du wàññi ci ngëm-ngëmu jullit yi tarfatal ayni bal jullit yi doon nelaw sax lii la leen di yeewaale parce que xam nañ ne li provocation la dañuy tooñ te boo waxee ñu ne droit de droit de droit de xanaa yi Muhammad moom amul droit moom xanaa amul droit ne man bu ma gën dessiné wala ñi ko gëm amuñu droit ne bu leen ko tooñ ndax France amuñu lu ñu wax lu dul Muhammad ndax amuñu lu leen doy lu dul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad yàlla moo ko tànn subhanahu wa taala ci mbooleem doomu aadama yi yàlla moo ko def yàlla mooy def lu ko neex faalun lima yurid tilka rusul li waa yi doon wax nee na nit ñi dafa am ay star mooy yonent yi yonent yooyu dañoo am ay superbe star mooy yenent yi yàlla tànn muy ulul azmi min ar rusul waaye super star yooyu dañoo am ah star star seen kaw mooy kan mooy seyduna muhammad yàlla moo ko def moo ko neex faalun lima yurid yàlla mooy def lu ko neex moo tànn muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu ku mu neexul wala ku mu naqari da ngay dee rek hatta ñun sax suñuy kilifa fi xam nañ ko wala Cheikh Ahmad Bamba lan la wax ci yonent bi lam yabdu misla Mustafa fil baraya sarmada Cheikh Ahmad Bamba moo ko wax alaaji malik lan la wax law lam yaluh fi lfadaai lkawni talatuhu tabqa albariyatu fi zalmaai allahu ñëpp xam nañ ne yonent yàlla muhammad moo fi gën sallallahu alayhi wa sallam beneen bi mooy li ñuy wax naan yonent yàlla muhammad dafa tase diine deret jaasi ay bomb jullit yi ay terroriste lañ jàng leen histoire adduna bi bu mu tàmbalee ba fii ñu yem kan moo sànni bombe atomique Hiroshima ak Nagasaki kan moo ñëw Afrique fekk ñu nekk ay jullit mu taal daara yi jàpp góor ñi def leen ay jaam jàpp jigéen ñi def leen ay ay jaam rey góor ñi am doole yëpp jàpp màgget yi def leen ay baykat dugal leen ci ay gaal bal sax dem ba Gorée def fa benn île daan fa dugal ay nit di leen yóbbu kan moo def loolu jullit yi la kan moo rey Irak un million musulman Afghanistan kan moo fa rey un million musulman fa Palestine kan moo ko agressé jullit yi jullit yi kay dañoo amul xanaa ay làmmiñ rek amuñu ñu leen a waxal beneen bi mooy ñoom jullit yooyu ci seen bopp ñoom ñoo naxas ndax yonent bi waxoon na ko la tattabi'unna sunana man kaana qablakum sibran bi sibr wa ziraan bi zira law daxalu xujrata dabbin la daxaltumuhu lépp ñun ñoo ko def olof yi nee nañ bukki bu yabee ponkal ca doxin bala ndax ñun ñoo bàyyi lu ñu waroon a nekk ñun ñoo bàyyi lu ñu waroon a gëm olof yi dañuy wax ne ku wàlliwaan sa kër a tëggul ñun suñu kër dafa tëgg ba pare ñu daan ne ko fi ñukk romb ko ànd ak yahud yu weex yeeg yu ñuul yi di xeex suñu diine waaye ku jàng histoire adduna bi bi adduna bi commencé ba fii dana gis ne jullit lu baax rek la fi mos a def yonent bi bu dee dafa xeex kañ la commencé xeex ba mu demee Médine bi mu demee Makk lan lañ ko def fan la juddoo Makk fan la màgge Makk fan la yaro Makk ba mu tàmbalee ne laa ilaha illallah ci lañ commencé rey fa la ñu reyee genn wàllu sahaaba yi mu àndaloon góor ak jigéen jàpp ñoom Bilaal di leen dóor jàpp yaayu Ammar ak baayam ala yaasir di leen rey ci kanamu yonent bi ndax bu tàng jër yonent bi romb leen naan leen sabran ala yaasir fa inna mawidakumul janna yonent bi loolu doyu ci mu dem taayif ñu dóor ko moom ci boppam ba tuur deretam yonent bi daw ñëwaat medinatul munawar yonent bi kay dafa fayu wa uzina lillazina qutilu bi annahum zulimu wa anna allah ala nasrihim la qadir il faut ñu jàng alquran il faut ñu xam histoire adduna bi ñu xam ne jullit keroog ba mu yëkkatee arme lan moo taxoon mu yëkkati ko arme xoolal yonent bi lan la jàngale laysa minna man xamala silah bokkul ci ñun ko yore ngànnaay bokkul ci ñun ko yore ngànnaay yonent bi ne ñaari nit bu ñu reyante ñaar ñëpp safara lañ jëm alqatilu walmaqtul fi nnar ñaar ñëpp safara lañ jëm ñu ne ko lu tax mu ne kenn ku nekk ci ñoom ñaar da ngaa yéene woon rey sa morom moo tax ñoom ñaar seen yéene leen yàlla di fay bal alquran moo ne ku dundal nit fa ka annama ahya nnaasa jamian yaa ngi mel ne dundal nga ñëpp waaye alquran moo ne wa man qatala muminan mutaamidan fa jazaauhu jahannam kon l'islam ñëwul pour rayaate waaye nag buñ ko tooñee buñ ko xeexee suñu jëlee ay agression romb ñëpp dem ci ku tal ne Muhammad su boobaa nag ku nekk loo gis rek yoo xamal ne yow yaa ko provoqué aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim ixwat al iman mbokk yi ci yàlla subhanahu wa taala yonent alayhi salatu wasalaam innahu al azam mooy ki màgg fa ida kaana fi lbashariya man yastahiqu l azama fa huwa muhammad su fekkee kenn ci nit ñi tey ku ñuy màggal wala ku yeyoo màggaay kooku dañuy fekk mooy saydul basar mooy sangu mbindeefi muhammad nee na lii man waxuma ko de haza kalaamul munsifin lii waxu waa tugal la waxu ñi nga xam ne sax nekkuñu ci islam da ngay fekk Lamartine fekk Hitler fekk Mahatma Gandhi ca Inde duñu ay jullit ñuy seedeel sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku nekk di mébét doon bëgg nekk ci li mu nekk ixwaan yi jullit ñi abal muslimun yuminuuna bi jullit ñi gëm nañ ko wa yaxtarimuuna jullit ñi respecté nañ ko wa yuwaqiruuna jullit ñi weeg nañ ko wa yabxaluun wa yubajjiluun jullit ñi mbokk yi dañ koy màggal fu ñu munta toll lu tax fa huwa qudwatuna mooy sunu royukaay al ulya bi gën a kawe wa huwa shafiuna yowma alqiyama ëllëg yowma alqiyama bu ñëpp jaaxlee adduna bi sax xamaguñu kan mooy muhammad lu tax ndax déviation yi dañoo bëri waaye kañ la ñuy xam yonent yàlla muhammad mooy bis bu ñëpp solee dafa yaramu neen moom kenn mu génn sol yére yàlla wàcce jant bi ba muy tiim nit ñi ñëpp nekk ci tàngoor ba yuur yi bax ñu daw dem ci ibrahima mbir mi lijjanteekuwul ñu dem ci muusa lijjanteekuwul ñu dem ci isa lijjanteekuwul ñu dem ci nuux lijjanteekuwul kenn ku ci nekk koo ci dem mu ne dem leen ci muhammad bi nit ñi sonnee ñu ñëw wax ko ne ko taxawaay bi métti na ñun sonn nañ xiif bi yàgg na mar bi yàgg na dama nga wax ak sa borom sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw sujjóot ci keppaaru arsh yàlla mu ne ko irfa rasaka wasal tuta wasfa tusaffa keroog la ñuy xam kan mooy muhammad moo tax mu ne moo ñuy ramm yowma alqiyamati sallallahu alayhi wa sallam wa qaiduna ila aljanna moo ñuy wommat keroog bu ñu defee benn cortège jëm aljanna moom yonent yàlla muhammad mooy nekk sunu kanam sallallahu alayhi wa sallam kon kii yastahiqul azama yelloo na yeyoo na mu màgg fa kayfa laa lu tax du màgg wa qad axraja annaas min azulumaati ila annuur wallahi li fi leer ci àddina bi muhammad moo ko fi leeral ñi fi jub moo leen jubal li fi baax moo leen baaxal xool leen diine ji yonent yàlla muhammad indi lan moo sikk ci lislaam lan li tax tubaab yi bañ diine mooy diine da leen di tere banditisme ndax tubaab léppam banditisme la tubaab amul lu baax buy lekkee loxo càmmoñ lay lekkee suy naan moom lay naanee buy wax ak papaam ne ko tiiment da ngay fen kuy wax sa papa da ngay fen xam nga ne baaxoo tubaab amul lu baax lépp lu ñuy def bu ñu demee àll ba sax du ñu laabu bu ñu tuuree ndox du ñu wisu lan lañ am lu baax moo tax ñu bañ islam islam lépp a set islam lépp a rafet islam lépp a baax islam amul caaxaan xoolal njaay àll tey li am ñu leen di roy def jigéen njaay àll foo fekk jigéen dal ci kawam foo fekk sàngara naan foo fekk riba lekk foo fekk lu la neex nga jël loolu amul ci lislaam moo tax xam na ne lislaam da leen di tere banditisme looloo tax ñu koy xeex bëgg bu mu tasaaroo ci àdduna waaye képp ku baax xam nga ne jikkoy islaam nga yor pour nga baax képp ku ñuy roy di la tiitaro ci àddina bi pour nga baax xatta boo nekkul jullit da ngay dégg ñu ne ah kii de du jullit waaye ah ay jikkoy jullit la yor kon foog ñu xam lislaam bi yonent yàlla muhammad indi jàng leen diine ngeen xool lislaam lan la tere rek te baaxul wax leen ma ko lan la tere te baaxul moo tax keroog bi yonent bi génnee àddina gaa yi dajaloo ci ay Aïcha ne ko dañoo bëgg nga wax ñu kan mooy Muhammad mu ne dem leen ngeen jàngi alquran da ngeen di fekk alquran yëpp Muhammad daf ko dund moo tax alquran ñaar la dafa am bu ñu bindoon ci kayit yi am bu doon dox mooy yonent yàlla Muhammad amul lenn looy fekk ci taarix luñ ne Muhammad def da ko lu ñaaw doo fekk ñu ne naan na sàngara doo fekk ñu ne def na lu bon lépp lu ñuy sibe nit doo ko fekk ci jikko yonent yàlla muhammad bal moom mooy ki ko tere moom mooy ki taxaw nit ñi pour bu ñu def loolu xoolal fen nga xam ne tey ñun dañoo alku ba am nañ weer wu ñuy fen nga xam ne tubaab baaxul ñun ñoo fi indi poisson d'avril ay lan la ay fen lu nekk caaxaan lu nekk rek da ngay gis ñoom ñoo ko indi ci àdduna bi pour tasaare ak mbon xoolal kapot yi lan moo ko fi indi pour mun ngaa njaaloo l'islam ne la bul njaaloo ñoom ñu ne non non non non mun ngaa njaaloo da ngay sol kapoor rek doo am doom l'islam waxul pour nga am doom dafa ne la bul njaaloo xoolal joxante góor ak jigéen loxo l'islam tere da ngay fekk lépp lu bon lu yàq société l'islam tere na ko amul lenn lu l'islam encouragé lu bon bal da ko tere ci yëpp nag hatta na yoon yoo xam ne boo fa jaaree sax dugg lu bon daf koy tëj lu mel ne njaaloo fan la tàmbalee ci xoolante fan la ci joxante loxo ci jaxasoo ba lépp la tere wax sax jigéen ñi pour loolu ba ñaam mu ne leen toog leen seeni biir kër mbokk yi ci yàlla ñun suñu suñu xamul Muhammad yàlla mi ko bind de xam na ko malaaka yi xam na ko hatta rabu àll yi xam nañ yonent yàlla Muhammad hatta al buraq xam na yonent yàlla Muhammad keroog bu yonent bi di rañaan yàlla na Jibril damal ci aljanna am na fas yu fa nekk nga génn ci benn nga indi yonent yàlla Muhammad war bi mu ñëwee di xool di xool beegi ca al buraq mu téye ko fas bi cëppi cëppi tëb sa leeru mu ne ko xanaa xamoo ki la nar a war mooy ki gën ci mbindee fi ku ko gën a màgg musulaa war alburaax dafa ñaq ndax rus ndax muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi fi mu doon taxaw ci minbar medinatul munawwar ci ak tàndarma la daan teg loxoom tàndarma mooy loolu ngeen di gis imaam yi di yor léegi benn bant bu ñuy xutba nii yor bant yonent bi ci loxo garabu tàndarma la ko doon teg ëkk tàndarma bu dee wallahi bi ñu wëlbatee minbar bi xam ngeen dañoo wëlbati minbar ndax julli ñi dañ doon jublu Jérusalem yàlla ne leen jublu leen mag ñu wëlbati minbar bi yonent sallallahu alayhi wa sallam di jublu makka bi ñu wëlbatee minbar bi dañ faa bàyyi ëkk gi vendredi jot yonent bi di jiite taxaw ñu dégg ëkk gi di onk di yuuxu parce que Muhammad tegu ko loxo dafa arrêté ne buddi leen ko indil ma ko keroog ba mu ci tegee loxoom ëkk gi ne tekk bu fekkee ñun xamuñu ko kookooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngoog kon du hasard ñu weex ñi ñu ñuul ñi ci yahut ak nasaraan ànd ne dañuy fay leeram waaye dañuy sonal seen bopp yuriduuna li yutfiu nuur allahi bi afwahihim yàlla nee na maa bañ wa yaba allah illa an tadimu nuur walaw kariha alkafirun walaw kariha almushrikun allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله